sa combat ak Valdo sax taxawoon na fi waaye da yaakaar naa def na ñaar ba ñetti at yoo xamante ni te mënoo koo bëre hmm. naka nga dundee li nga toog at yu bëri te mënoo bëre waaw dëgg la xam nga danoo jógewoon si birisili hmm. après bi ñu jógee si birisili ñuy toog di xaar suñuy morom hmm. kenn nangu la ñëw bon man ma daal di def déclaration daan ne xale bu pourve am fu la fayda ma jël la ma jëloon ku mel ni Valdo tamit ñu préparé ko ba mu des trois jours après covid bi yàq ko mais nag sant yàlla depuis loolu nag ñoo ngi toogoon di xaar yàlla dogal tey ñu am Jackson vraiment ñu koy waaj pare nan parce que ku pare moom yaakaar naa ne nekkatoo fii di waaj kon donc mu des man damaa ne jour ji mooy kat li des bëreetul dañuy ñaan yàlla rek ah yàlla mi am sutura nu yàlla na nu suturaal ñu gañe combat bi ñu mën a delluwaat suñu place. pourquoi pourquoi le choix de le choix de Jackson. waaw man maa def déclaration parce samay morom kenn nangu la ñëw. Mhm. parce boo xoolee ñoom ñëpp am nañu combat dañuy teggi amet dem. xam nga nga daan ko jël bu rëy toog di xaar kenn nangu jël. kon donc damay ñëw jël ko xamante ni Jackson la am na tur. prouvé ndaanaan la champion la. te prouvé na quoi. pour ñu xam ne gladiateur bi retour de gladiateur bi. Mm, ñëwaat na quoi. moom nag ah gi jàkkaarloo nañ waaye nee daal ak lu mën a xew moom. combat bi bëggul mu yàgg. moom nag nee mënul wax waaye dafa la bëgg daan te la gaañ. waaw xam nga li ma koy faral di wax rek Jackson bon dama damay wax ne dafa juum mhm. dafa juum parce que bu ma juumul mook promoteur bi ñoo dëkk mhm. bon moom nag moo def choix bi mhm. na moo tëgg combat bi nee naa ko amul problème loolu dara waaye da laa bëgg a jàllale bëgg laa wutal yoon fii nag di yoon fii du yoon non fii du yoon bu ñëwee lu mu fi fekk yaakaar naa ne Jackson daal di see xam Ahmed Deme bu ñëwee lu mu fi xam naa ne jour jour ko wan ma moroom pour yow bu ñëwee lu mu fiy fekk côté xeex beeg bëri beeg lu mu fiy fekk lépp mat na incha allah entraîné lépp ni mu waree Euh, Bruce Lee ba léegi toogu ma maa ngi entraîné. maa ngi kon maam maa moom moom bokkuñu sax wallaahi laaj wax naa kan muy jéem a xiiroog di nga mais Jackson. Hmm. du sa morom. nee na bëri xale ak mag bu ñëwee allah. Hmm. di xam ne du sa morom. nee na bëri xale ak mag la. waa ñoom loolu la ñuy wax xam nga teel a bëre teel a am tur si làmb ji. léegi dañuy def ay mag. Hmm. te à chaque damay gis mbëri. bu ne ay mag lan. mais bu ñu demee ba si biir géew ba summeeku. dinañ xool kan moo gën a yore yaramu xale wala kan moo yore yaramu mag. wala kan moo gën a baax état de forme. waxoon naa kan mënu koo gëm bés bu ñu summee ko après ngeen après yéenay jugé après ngeen xool kan moo yor yaramu mag wala yaramu xale. kan moo yor yaramu mag wala yaramu xale affaire bi entraînement la. gars yi dañ koy faral di wax mais mag ñi dañuy ñëw plein doole plein entraînement. Mhm. parce que dañu gis ne euh, combat bi mujj digganteem ak Naaru Sogas doole bi maanaam dafa ëppoon lool lool waaye tey moom bi ma la gisee macha allah euh, waaw. Mhm. naa ko ñi mu bëreel. Mhm. bokk na man te man ñi ma bëreel Jackson mënu leen a mënu kaa hmm. comprendre nag xam naa dimanche dina ko comprendre incha allah. dimanche dina ko nee naa la. Hmm. man yabuma taalibe Seex yabuma Issa Marière ak ñoom ba mu ko nu génn ay moyens yu bëri. Hmm. teg ka si combat bi xam nga ma dem préparer def lépp non yabuma leen ba may ñëw jour ba incha allah di di wane leneen ak ñàkk a fayda wala ak cuune non. moom nee na rek xaar ko mooy def lépp. noo lool lool lool ay waxu mbër la rek waxi mbër la rek combat bi. wallaay dinañ gis beneen retour gladiateur incha allah. mooy li may faral di wax rek toto yooyu la Ahmed Deme da koy tere te bu jour ba Jackson dinaa la wax li may tere incha allah. bu arbitre sifflé noo def. non bu arbitre si yoon parce que dañ gis tamit mu daw mu mu ak Pape Ndoye mu kaw ko kaw bu garaaw boo xamante ba tey gars dañu koy waxtaanee. est la naanaan la Jackson xam naa ko baax yàgg naa kaa suivre. Mhm. peut-être nag moom moo ma xamul mais xam naa ko bu baax wala mu xam ma di jéem a da nga jàpp ne daf la umpale <laughs> non daf maa umpale wala mu wala mu xam xam nga ah, dafa am dafa am ñoo xam ne dañuy comp dañuy komp ba pare naj am ñoo xam dañuy komp nu moom nag peut dafa komp naj wala wala mu wala kompul rek mais xam naa ne bu jour ba dina komp ko bu jour ba